bu boobaa mel na ni ko saraxe junni dinaar goreel junni jaam leel junni ñu xiif te des na nangu julleem ak kooram te des na ko musal ci ayu àdduna ak àllaaxira te bu bés pénc baa dana bokk ci ñi nga xam ne duñu jàq duñu tiit te des na ko ramuloo ñëw ci ñi waroon a dem safara lu ko soob mu yóbbu leen àjjana te desu leen xisaab mbokk yi ku ci bëgg yeneen ñi leeral da ngay dem ci xurratuwaay ni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 146 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi